démb njiitu réew mi Macky Sall gannaaw bi nga xamee ne nag mu ngi doon dalal ñi nga xam ne ñoom ñooy euh, syndicat yi ngir daal jël seeni i de doléance moom nag xamle na ne yenn recrutement yi nga xam ne daal dañ koy def euh, ci li nga xam ne moom mooy collectivité territoriales yi da nga xam ne duñ ko teg ci yoon mu ne loolu nguur gi du ko nangu moom sax nee na euh, képp koo xam ne daal maire la wala daal mu nekk daal élu ko di def ay recrutement yoo xam ne tegu ko ci yoon ay daan mën na ko caa fekk ba sax ñu dàq ko nawet bi nag euh, dafa mel ni dafa tàmbali fii ci Sénégal euh, ndax euh, daa am daal fële ca Kédougou fi ñuy wax Salimata foofu kon ay taw daal dafa jot a wadd démb kon ci mardi bi ay taw yoo xam ne kon ñu ne xaw na am solo ndax lu toll ci waxtu ak xaaju waxtu taw ba dal na fa foofu la ca Salimata ba tax nag ñu bari Euh, yaakaar ne daal gox boobu nekk ca gu kon nawet dafa tàmbalee wante nag bu sukkandikoo ci ñi nga xam ne ñoom ñooy waa météo euh, nee nañ daal li nga xam ne moom mooy nawet tàmbaleegul fii ci senegal ay defkatu ñaawteef yoo xam ne dañoo nekkoon daal fële ca Mbour euh, di fa def daal ay tojaange di dogaale nit ñi di jël seeni alal ak yi ñoom nag lii di waa police teg nañ leen loxo fi mu ne nii kon ba ñu ngi ci. Euh, loxo yi yoon ñoom nag euh, seen ñaawteef bu ñu mujjee def sax ñu ngi ko amal foofule ca Mbuur nga xam ne kon ab daal euh, koo xam ne ab indien la la ñu daal sàccoon lu toll ci dix-neuf millions ci ay kopparam jigéen boo xam ne nag euh, dañ koo fekk mu faatu fële ci Tivaouane pël moom sax euh, ñu fekk ko kon fi nga xam ne fa dëkk euh, te moom rek ñu ne moo fa dëkkoon moom sax mu ngi toll ci soixante ans ñu fekk kon ñu faat ko ba pare yeew loxo ya buy sukkandiku suñu naataango yu libération moom nag ñu ne moom dafa bokkoon ci ñi nga xam ne kon mbënd mi moo leen sonaloon ba sax kon ñu jëlee leen. ñu jëlee leen kon ca Medina Gounass yóbbu leen foofu la ca Tivaouane Peulh moom nag kon dañoo daal bésub Korité boobu daal lañu fekk mu faatu ñu yeew loxo ya fi mu ne nii nag li nga xam ne moom mooy l'enquête ba jëbbal nañ ko waa section euh, de recherche ngir daal ñu mën a topp mbir mi ba xam ñen ñoo def boobule ñaawteef xibaaru Afrique benn ponk lay doon muy nag euh, ci géej gi nga xam ne kon ay géeju Tunisie la euh, foofu daal euh, dañ fa for ci lu toll ci vingt quatre ci ay koor ñu ne ñoo xam ne daal ay migrants seen i néew kon la ñu for ndox ma gannaaw bi nga xamee ne kon géej gi moo ko génne ñu ne ñoom nag ay ñoo xam ne daal la dañoo yéegoon ci ay gaal ngir daal kon bëgg a tukki loolu ñu naan immigration clandestine ñu ne nag loolu mu ngi am ñu ngi ñu ngi ñu ngi yéegoon ci gaal yooyu. ci diggante la 22 jàpp le 30 avril euh, ca ginnaaw ga nag seen gaal yi dafa suux ca ndox ma euh, ba tax kon euh, lu toll ci daal 24 ci ay néew fi mu ne nii for nañ ko ca géej ga foofale ci ay géeju Tunisie. xibaaru bitim réew it benn ponk lay doon muy réew mu France bi nga xam ne nag dogal bi nga xam ne waa Mali jël nañ ko. ngir daal dagg bépp xaatim boo xam ne amoon nañ ko seen digganteeg ñoom ci wàllum euh, sécurité ñu dindi ko ñi nga xam ne nag euh, ñoom ñooy kon euh, waa France nee nañ daal boobu nga xam ne kon réewum Mali jël na ko ngir dagg bépp bépp xaatim bu nekkoon seen diggante ci wàllum kaaraange ñu ne daal loolu jaarul ca yoon ñoom waa France kon ki nga xam ne nag moom mooy seen ministre des affaires étranger moom moo ko xamle moom sax nee na fi mu nekk nii réewum France mu ngi wëyal di. jëlee ay soldaaram ya nekk foofule eh, ca Mali eh, te loolu nee na ko amal eh, fii ay weer waa Mali nag ñoom daal dañuy tuumaal waa France na ñoom daal dañuy amal daal ay violation maanaam daal dañ leen di tooñ di daal ñëw ci seen espace aérien maanaam di naaw tiim seen jaww ji ci loo xam ne du yoon wante itam daal dañ leen di daal tooñ tooñ yoo xam ne daal day laal daal seen souveraineté national maanaam moom giñ moom seen bopp dañ koy jeexal xibaaru sport ak fële ca Argentine foofu nag ab mayo boo xam ne eh, kii di Diego Armando Maradona nekkoon fa football bu mag eh, mayo bi nga xam ne nag moom la soloon gannaaw bi nga xamee ne eh, réewam Argentine dooroon na ki nga xam ne moom mooy Angleterre ci coupe du monde 1986 boobule mayo nag moom lañ jaay vente aux enchères ci lu toll ci 9 virgule 3 millions de dollars boo ko xaymaa ci suñu koppar day toll ci cinq milliards sept cent soixante dix neuf millions neuf cent cinquante mille francs vente aux enchères nag mooy jaay boo xam ne daal dañuy tàllal mayo bi ne ku fay lu ëpp rek yow yaa koy moom kon nag loolu lañ ko mujjee jaayee muy ay koppar yoo xam ne bëri na lool loolu sax dafa tax ba mayo boobu ci mbirum sport daal mooy mayo bi gën a seer bi nga xam ne kon jaay nañ ko ci àdduna ci koppar yu bëree noonu li la ñu indiloon tey ci xibaar dafa seen taw dinañ jox daje ëllëg jaa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 yéex naa ñëw. yaa Allah Allah Allah Allah yaa Allah.